xibaar bu tiisan bu dal sàng nii rek ci kaw taskati xibaar yi xam ngeen ni groupe Futurs Médias Ndate Diop xam ngeen ko bu baax a baax mu daan présenté li nga xam ni mooy journal euh, moom nag lañ xam le nii ni dafa génn àdduna moom Ndate Diop moom mi la nga xam ne présentateur journal la woon ñu bare bëree bëri na ñu daan teewlu xibaar yi moom moo daan ñëw di présenté moom Ndaté Diop ñuy ñaan rek suñu borom yërëm ko te xare ko àjjana sàng nii leen jot xibaar bi ki doon présenté journalu 12h RFM bi sax mujj ko mën a àggale ndax ay jooy la ko waral nag mooy Ndaté Diop nekkoon ku ñu ràññee ñu xam nekkoon présentateur journal bu mag a mag macha allah ndeysaan moom Makumba be ñoo daan jokkalante lenge yi bu fekkee moom ñëwut moom mooy ñow moom nag yéguñu woon feebaram waaye daal lu ci mën di xew daal tàggee nañ ñu ko sànq nii xam naa dinañ ci ñëwaat gën ko yaatal.